ko waaye Ousmane Sonko da fay wéy di dess eh, ci loxo tak deri ndax dafa am mandat d'amener buñ ko wara yobbu ci juge bi eh, lan nga ñu mëna wax ci xibaar bobu wa moy li li nga wax rek je crois que ni nga ko waxee loolu la bon ñi nga xamante ne dañ leen téyewoon ak mom moy garde du corps yi ñoom dañuy dem parce que garde à vue bi dañ ko lever moy dossier trouble à l'ordre public bi ak participation à une manifestation interdite donc comme lever nañ ko ñom dañuy dem mais xam nga Sonko li ko fa bàyyi mooy mandat d'amener bi juge d'instruction bi def mandat d'amener bu ñu la ko defee mooy képp ki nga xamante ni agent de la force publique la fu mu la fekk da lay téye mhm. présenté la au juge d'instruction mhm. donc loolu moo tax bi ñu ko présenté vendredi juge d'instruction bi renvoyé loolu la ñuy wax rek retour parquet la rek fi mu nekk ni mën nañ ne retour de parquet la nekk mhm. mu delluwaat au niveau de la gendarmerie di xaar pour nous représenter au juge d'instruction demain matin. Mhm. donc il est toujours dans une sorte de détention parce que juge d'instruction d'accord mais maître man que vous xam que euh, garde à vue mandat d'amener procureur de la république dossier la boo xam ne nit dafa demoon. moom moom bu ko bu ko demandé woon duñ ko ko yóbbul Ousmane Sonko comme mi ngi ci seenay loxo wala Sonko Ousmane dafa am loo xam ne nanguwu ci euh, nanguwul nanguwul comparaître wala lan moo am parce que am na mandat bu ñu doon wax comparution ak yooyu. waaw xam nga fi mu nekkoon. Mhm. nekkoon garde à vue ci lañ def mandat dama ne yóbbu mandat mandat de comparution. Mhm. mandat de comparution mooy dafay ñëwal sa bopp. Mhm. mu ne leen man mënu leen sa bopp parce que dama nekk en garde à ñu toftal ci mandat damane mandat damane nekkatul da ngay ñëw sa bopp mais dañ lay jël si par force. Mhm. donc ñaari procédure la nekk yoo xam dafa jaxasoo àndul. Mhm. te lépp euh, jaxasoo bi yëpp fu mu jógee mooy problème mu jàpp bi ko jàpp bi mooy dem di wuy ji. Mhm. Euh, juge d'instruction bi. kon d'accord kon demee incha allah moom ak euh, le juge Samba Samba Sall moom moo moom moo décerné mandat damane bi kon ci moom lay lay dem. ci moom lay dem te Ousmane Sonko génnagul il faut que mu dem ci juge bi demee. d' accord juge d'instruction bi wax ndax da koy bàyyi. ah d' accord d' c' est demain à 11h incha kon mën nañu xaar par exemple mu am seen assistance mu bañ a mel comme ni nga xam ni noonu la noonu la demee woon la fois passée. waaw dina am parce que juge bi amul choix parce que dossier boobu viol la ak menace de mort. Mhm. donc crime la. Mhm. crime bu amee avocat bu bu taxawul du kenn du ci def dara juge bi du ci ah, mën dara. d' accord loolu moo tax il est obligé de nous admettre demain. d' loolu kenn waxatu ko. Ah, bañ a alors comme yéen yéenay ay avocat am yéenay ay conseil parce que aussi avocat mooy conseil ndax mën nañu njort ci yéen ngeen conseiller aussi eh, ki nga xam ne Ousmane Sonko ni ñu ko déggee ñëpp di wax apaisement dal mën am ci réew mi ndax mën nañu xalaat ngeen conseiller ko lo xamni ni joggé ci mom ñew ci yéen jëm ci askan wi ci lu indi dal ci biir réew mi. waaw loolu dinañ ci après dinañ ko apprécier après suñu biir parce que amna lo xamni aussi mënu ma wax ci télé dañu nekk ci contexte bo xamni ne dafa xaw a doy waar. Mhm. te dañuy liggéey en poule parce que du man est 10 avocats donc loolu yëpp boo ko parce que le plus ñuy dañu coordonner. d'accord parce que dañuy bañ wax loo xamante day ok dañuy bu rek d'accord maître man laaj bu rek libéré euh, euh,